institut de formation professionnelle d'informatique et de gestion Serigne Abdou Karim Lahad Bara nekk ci Touba Gare bu Ndaw ginnaaw formation boo xam ne ay ndaw am nañu ko ci institut bi amal nañu journée de remise de diplôme ci élèves yi nga xam ne ñoo noppi seenu formation. dañuy sant Serigne Touba bu wér di sant Serigne Bara di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal xalifa maam Cheikh Fall di ko ñaanal taalibe yëpp di ko ñaanal kilifa diine yëpp di sant bu baax ci teewaay sunu yaay sunu invité yi sunu élèves yi wala boog sunu naataango yi ndax bu ñu xoolee li leen dox wax à chaque fois mooy ay nawle lañu bu leen magee tamit li leen magee bariwul wala bu leen magee ci xam-xam lañ leen mag tayit gëm naa ne bu fekkee gëm ngeen seen bopp mën a góorgóorlu lépp lu leen jox ci xam un jour viendra mën nañ ko sàkku ci yéen te loolu la ñu gëm muy que ne xam-xam dañ koy sàkku te nangu ci dox nangu ci jëm. remerciement yi ak ak contentement bi dañ koy manifester ci ay nit yoo xamante ni certes am na ñu ñëw certes am na ñu ñëwagul ki ci njëkk mooy Diamanka di euh, responsable immeuble bi sa disponibilité sa générosité amul benn côté bu mu dul jàppale ñu seere ko ci kanamu ñëpp pour ñu xam ko monsieur Guèye sama élève la sëñ Abdou moom dafay def formation sari en même temps mais le respect bi nga xamante moom jox nañu ko dangay ngay mujjee sax am kersa sa diggante ak moom du coup moom tamit ñu ngi leen di remercier di kontaan ci ñoom di am mbégte lool nag wallahi ñi ngi am mbégte lool lool lool lool lool ci teewaay yi ci jot bi nga xamante ni jox ngeen ñu ko bien vrai que ni temps amul dañ fiy xàmmee ba fi xàmmee ay élèves yoo xamante ni ñu ngi leen formé woon ci école Moussa Diakhaté biñ leen waxee ni leen dañuy def remise de diplôme ils ont très contents pour ñëw fii nii fekke ko lii loolu mooy am nañ ak ñoom de relations yoo xam ne on a entretenu des relations yoo xamante ni moom mooy mën a tax on a pu garder le contact ba léegi nii ñuy déggante ba léegi nii ñuy mën a demlante di dikkalante kon ñu ngi leen di remercier ñoom ñëpp bëgguñu lim di juum di sant bu baax suñu waajur yi nga xam ñoo fi yebal seen doom ñuy jàng dañ ciy waxtaan ma leen di wax ni leen ñun de suñu jaan dañuy jàpp ni wàccagum sunu jaan wàccagum mooy lan mooy que ni bëgg nañoo dox ba gis ñëpp ñoo xamante ne jaar nañ fi def formation ñoom ñëpp ñu insérer leen ñu toog ci place yu baax di liggéey ñun lool mooy suñu jaan bu wàcc bien vrai que ni jox nañ leen les connaissances nécessaires jox nañ leen les compétences nécessaires jox nañ leen jëfandukaay yoo xamante ni fu ñu dem dinañ fa mën a toog mais lii daal suñu xel ñun nekkul ni monsieur Ndoye mi ngi gagné ci école bi rek mais école bi képp ko fi jaar man ci gagné du coup loolu bu mënul nekk dañuy gis ni amul njariñ ni ko suñu kilifa waxee woon bu fekkee école yow rek lay jariñ man gisuma njariñam du coup wax jooju ñun moom la ñuy jëmbat moom la ñuy te incha allah ci loolu la ñu fas dox li ci dolliku mooy di dalal ñëpp rek di dalal ñëpp tey wax récipiendaires yi lii seen bis la comme ni leen ko waxee tout au début yéen yéen a ko mën a coloré yen yéen ko mën a neexal yéen yéen ko mën a yóbbu foo xamante nii bien vrai que ñun am nañ ci part de responsabilité mais école bi seen école la yéen tey jii ku fi mën di jaar boo génnee buñ la laajee école monsieur Ndoye ngay wax institut de formation professionnelle d'informatique et de gestion lan nga fa jàngee nangam nangam laa fa jàngee kon école bi yéen yéen a ko porté yéen yéen a ko yaatal yéen a tax ba ku nekk mën ci jot pour mën a pour mën a jariñoo école bi. institut bi ñoo ngi ko sos ci xam bu baax a baax li ñuy def te mën ko lool lépp bëgg ak pas-pas lal ko. ginnaaw bi nga xamante ni euh, nuyu nañ ñëpp di ziar ñëpp tey ñu fas yéene waxtaanee loo loo xam ni mu ngi jëm ci wàllum formation professionnelle ak métier du numérique formation professionnelle nag comme ni ko sëñ Abdou Khadir waxee ci début bi. balaa laata tàmbale ñaari notion ñoo ko composé muy formation ak professionnel formation ci waxin rek boo déggee ñu naan formation mooy képp koo xam ne yaa ngi koy jàngal maanaam gone goo yóbbu daara mu jàng alxuraan yaa ngi koy formé ci alxuraan koo woo mu ñëw toog nga woon ko sa téléphone nii la ñuy defee lii nii la ñuy defee lii kooku it yaa ngi koy formé waaye nag dafa am beneen notion boo xam ne moo ko ñëw fekk si muy professionnel professionnel it bu ñu ko waxee yenn saa mooy nit koo xam ne mu ngi yëngu ci dara yenn nga toog dégg ñu la diw c'est un professionnel de l'information mooy journaliste la wala ñun la diw c'est un professionnel de la communication mooy kooku communication mooy mooy liggéeyam donc bu ñu dajalee ñaari notion yooyu day day réunir ci benn muy formation professionnelle nga xam ni kon mën nañ kaa jàppee loo xam ni mooy njàngale moo xam ne dafa xaw a laal métier ci tubaab ni ñu ko mën a waxee rek euh, formation mooy xam-xam formation nit dalay former ngir nga am xam-xam waaye boo ci yokkee professionnel bi nag dalay former ngir am xam ba pare am man-man bi mooy tey jii nii nit ki comptable yi nga xam ne ñu ngi leen di former euh, ñoom mën nañ leen a former ba noppi ñu génn xam texte yi nga xam ni moo régir lépp xam code yeeg yëpp xam numéro de compte yeeg waaye opérationnel luñ mooy tey jii mënuñoo génn liggéey fenn wala tey jii mënoo créer sa entreprise nga jox leen ko daane leen yéen a ko gérer donc kon kooku daanaka théorie la am waaye amul pratique léegi nag bu ci formation professionnelle bi yëpp duggee mooy yenn saa yenn formation yi ñu leen defal de courte xam ne dañu lay jàngal sar yi wala yenn saa ñu teg la ci ñu mettre la à l'épreuve wan la lii lii lii wan la benn kaawu entreprise boo xam ne yow yaa koy war a gérer léegi nag ci loolu ci ci ci noonu la ñuy dikkee ci formation professionnelle léegi nag ñun man mii sax damaa waroon tàmbali ci présenté wu xam naa ni foofu laa waroon tàmbale nga xam ni man Libaas Diop laa tudd maa ngi dëkkee Ndakaaru dëkkuma nag Thiès laa dëkk waaye fi mu toll nii Ndakaar laa yëngoo moo tax fa laa bi Baye Serigne également ñoom ak Serigne Khadim xalaatee école bi biñ ma ko waxee dama cee sawar lool ndax Touba dafa nekk dëkk boo xam ne ñun balaa dara balaa dara xew ay murit lañ te jàpp nañ ni formation bi ni mu accessible ci yeneen dëkk yi war naa mën a accessible noonu ci Touba ndax jeunesse bi nekk ci yeneen dëkk yi daanaka ëpp ñu ëpp ñu jeunesse Touba bi xel te yenn saa sax ñu ci ëpp ci Touba dañuy am ci yarum alxuraan te yarum alxuraan daa mel ne day am lu ñuy wax ci muusum nit ki maanaam def ciy joué ginnaaw loolu it bi ñu ko waxee it ñu nit defuñu lu dul kontaan ci ndax it dafa nekk loo xam ni ci niñ koy waxee. Euh, yaakaar naa moom Touba loola fi nit defal rek ci ni ñu koy waxee ci lislaam fardul kifaaya la mooy dala kaa defal waaye dal da daanaka ñëpp la war waaye bu ci amee ñenn ñu ko ci def rek bu boobaa dina wàcc ñenn ñi noonu ñun nag bu ñu gisee ñoo xam ne ñu ngi ciy dimbali ñu ci mel ni yenn établissement yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi daanaka duñ mën lu rafetlu ko ci loolu it ni mu ko waxee bi mu bi ñu waxee ci formation tamit daal ni dañoo bëgg a formation bi ñu ci laajee kilifa tamit dañ ne ko na nekk ay formation professionnelle yoo xam ne nit ki bu ci duggee bu génnee dana am xam-xam boo xam ni dina ànd ak pratique maanaam dana ànd ak loo xam ne bu génnee dana mën a xëy ci ca ca la ma doon jàng ginnaaw loolu nag fi mu toll nii mën nañoo def benn comparaison ci formation professionnelle ci diggante Sénégal ak hors du Sénégal mooy yeneen dëkk yi nga xam ne nekkuñu Sénégal yeneen dëkk yi daanaka nag fi mu toll nii formation professionnelle li gën a tax gën a tax gën a tax ñu wax ko ñaari mbir moo tax mooy accès à l'emploi wala entrepreneuriat accès à l'emploi nag bu ñu ko waxee mooy ñi nga xam ne tey jii nii euh, jàng nañ ba mi xam-xam dem metre ko au service su benn entreprise di entreprise am nga dem di fa liggéey en tant que comptable wala en tant que informaticien wala yeneen ak yeneen wala tey jii nga nekk ci benn domaine entrepreneurial mooy tey jii nañ mën nañ laa former mën ngaa xëy bëgg taxawal sa euh, sa pâtisserie wala leneen ñëw ñu former la euh, ci matière yooyu maanaam nga dem ba mën a mën a def loolu mën ci taxawal sa sa bosu bopp malheureusement nag Sénégal amaana mbir yi amewu fi doole noonu ni ki misaal rek damay nekk di joxe ay cours à distance ci benn établissement benn établissement bu nekk France en tant que mentor ngay nekk day am ay étudiants yoo xam ne dañuy ñëw jàng si waaye da ngay gis koo xam ne day ñëw jàng si informatique day am day am fanweeri at daanaka ñëw di jàng si informatique te mosu ko def au préalable maanaam mos sa def informatique ci dundam caissier lay nekk wala mu nekk comptable mu dem ba ci biir mu ne man de sentiratu ma def a def dem def benn formation balaa at maa jeex mu am liggéey ci loolu mu def Sénégal nag daf xaw a jafe ndax mooy système bi nit ñi doon wax boo demee États-Unis dañ naan la lan nga mën nga dem ci yeneen dëkk yi comme France ñu ne la an say diplôme Sénégal nag fi mu toll nii yenn saa am nañ jafe-jafe googu mooy yenn saa lu ci ëpp boo amut ku la jàppale maanaam li gars yi di tuddee baralon mën naa mën naa xaw a jafe ci waaye nag nañ jàpp ni tamit adduna bi day am benn cycle de répercussion mooy tey jii la nga xam ne moo xew Europe wala moo xew états buñ toogee fii ak at rek dina fi xew mooy tey jii ni genre de conversion yooyu ma wax sànq nga xam ni am na États-Unis am na France am na feneen ak feneen buñ demee as diir dina agsi Sénégal gii ñu nekk ndax fi mu toll nii boo xoolee France sax doxee wuñ noonu bu njëkk daanaka loo amul diplôme rek duñ la ci wax waaye fi mu toll nii ñoom ñu ngi dem ba ci biir ñu ngi adopté système États-Unis bi mooy tey jii nii boo amee compétence rek ñëwal ñëwal liggéey soxlawul ngay am ay diplôme bac plus 5 bac plus 3 wala leneen ak leneen amaan ah, nag Sénégal léegi ba léegi loolu ñuy tënk ndax da bëgg benn liggéey am compétence yi am man-man gi yooyu jafe la waaye nag du du ci ñëpp du ci ñëpp ndax tey jii nii ku ci nekk yaay sa chef d'entreprise bopp boo yoree sa entreprise yow yaay xool daan tey jii kii may recruter dama koy recruter ndax compétence wala dama koy recruter ndax diplôme waaye nag fi mu toll nii dañoo nekk ci monde boo xam ni comme ni ñu koy waxee ni ñu koy faral di waxee mooy ñi nga xam ni ñooy excellent rek ñoo ciy génn daanaka boo digg doomoo sax di nga am jafe génn ci maanaam à chaque fois da ngay jéem a sa bopp wane ni lii nga nekk nii yow maanaam kàngam nga ci maanaam nga mën nga ci say morom ndax boo yemeek ñëpp rek yem ak ñëpp sens waaye boo ci mënee say morom it ëpp leen sens ci ci ci ci di génn ci loolu. léegi nag Sénégal tamit amaana euh, am na am na am na am na ci yenn organisme yoo xam ne ñu ngi ciy tàmbalee liggéey ndax boo demee ba ci état bi fi mu toll nii ñu ngi taxawal ay ay ay ay kuréel yoo xam ni ay trois fpt and ak ONFP nga xam ne mooy office national de la formation professionnelle xam ne ñoom liñ ci bëgg mooy tey jii nii fekk nit jàng dara ñu réorienté ko jàngal ko benn métier boo xam ne dana ci mën a yëngu ndax ba léegi tamit ak lu ci mënti am mooy suñu système académique du ma ndax scolaire bi sax déjà critiques bari na ndax moo xam ne da nga koy jàng euh, mën naa ne fukki at ak ñett am bac boo amee bac war a jàngaat juróomi at wala nga jàngaat juróom-ñetti at daanaka 21 ans ci sa dund da koy jàng balaa nga génn daanaka fanweeri at li nga koy jege di nga ko jege te kooku daanaka euh, euh, amaana système bi tënk na ko tënk goo xam ni euh, mënoon naa bañ a demee noonu nit ki sax fi mu nii day jàng ba am mbag maanaam bi muy dugg am na juróom-ñaari at mu jàngaat fukki at ak ñett am vingt ans am bac ñu réorienté waat ko benn filière boo xam ne dafay dem jàngaat fa ba pare te xam na ni lii naru cee am liggéey su ma waxee filière yooyu nag filière yi mu jublu mooy yenn yi nga xam ni dañ fay yóbbu masse bu baree baree bari te ñoo ñëpp boo xoolee ñooy mujjwaat ci concours yi ndax Sénégal euh, demee na noo xam ni fi mu toll nii UCAD boo nee université Cheikh Anta Diop lañ fay orienté ñu fa bari te université Cheikh Anta Diop la fay formation professionnelle daanaka lu xaw a la daanaka dañuy jël plus de 1000 étudiants wala ay 2000 étudiants yóbbu leen histoire jëlaat 2000 étudiants yóbbu leen philosophie jëlaat 2000 étudiants yóbbu leen ay langue ay lettres modernes leen ci langue yi ay espagnol ay boobu. marché bi du ko accumuler parce que tey jii 2000 historiens mënuñoo génn ñu jëlandoo leen mënta nekk su ma nee loolu nag xewuma discipline bi maanaam histoire nag lu baax la ci lu baax la ci réew maanaam philosophie it lu baax la xewuma ci benn filière waaye degré yi nga xam ni moom lañ fay orienté moo xaw a moo xaw a néew mu dañuy orienté foofu deux mille jël ENSA yóbbu fa ay 80 wala ñeneen ak ñeneen ENSA mooy ñi nga xam ne ñoo jàng bay bu fekkee nag euh, lu lu yées téeméeri téeméeri nit moom nga yóbbu ñu dem jàng ji bay nga jël euh, ay junniy nit yóbbu leen ñuy jàng ci benn làkk yaakaar naa ni bu boobaa système bi day day day xaw a défaillir léegi nag li nga xam ni mooy mooy mooy mooy mooy mooy obstacle boobu ni ñu ko mën a déjouer maanaam ni ñu ko mën a wëree ba génn ko loolu moo di formation professionnelle moo tax fi mu toll nii Sénégal daanaka boo dëggee ci dëkk yi rawatina Dakar ay école de formation rek la mënoo dox 100 mètres yoo xam ne wala 1 kilomètre yoo xam ne doo romb école formation te ay formation la ñuy joxe. Euh, fi mu toll nii nag xam naa ni dañuy tënk rek ndax waxtu wi xawoon xaw naa sori dèjà fi mu toll nii nag formation yooyu it buñ ko accumuler ak métier du numérique day nekk loo xam ne day gën a yomb ndax bu ñu nee métier du numérique mooy lépp loo xam ne laal na digital bu ñu nee digital mooy lu jëm ci wàllum ordinateur wàllum téléphone wàllum communication dans les réseaux sociaux ak yooyu yëpp kon ñu fas yéene décliner quelques métiers yoo xam ne ci métier du numérique la ak tamit ah, nan lay nan lees ci mën a bi ñu njëkk mooy yenn saay euh, ñu ci ëpp ci Sénégal sax moom lañ jàngoon muy maintenance et réseau mooy ki nga xam ne bu ordinateur yàqoo mën na kaa tijji réparé ko xool la ca yàq daal di koy réparé joxaat la ko mu men loolu muy maintenance réseau mooy ki nga xam ne mooy fexe ba nga am connexion internet loolu ci métier yi njëkk ci informatique fii Sénégal ci la bokk gannaaw loolu moom ay développeur logiciel développeur logiciel yi mooy ñi nga xam ne application yi nit ñi di maanaam tey jii ni ñiy def war yi application yi ñuy utiliser ñooñu ñoo koy développé wala ñuy def ay western union wala yeneen yeneen xeet bari na logiciel yoo xam ni nit ñi ñu koy développé yoo xam ne nit ñaa ngi koy utiliser loolu mooy ci développement web bi mooy ci développement logiciel en général développement logiciel tamit xaaj na ñaar am na boo xam ne développement web dong la koo xam ne ay site web lay defar ak ay application yoo xam ne c'est accessible via les navigateurs mu amit beneen métier boo xam ni jafewut lool muy community management fi mu toll nii community management bi muy doog xew ñu ci bëri yàqoon nañ yaakaaroon nañ ne du am essor boobu ndax fi mu toll nii nit xalaatut a yëkkati fanweeri junni di ko fay nit juste mu lay gérer sa page Facebook sa page Twitter ak sa page Instagram bu njëkk lu ñu néewaloon la lool waaye dañoo dem ba ci biir ñu gis ni liikat lu mat a def la ndax day gérer réputation nit ki liñ naan foo nekkul tuumaal la fa day yomb daanaka loolu la yenn saa yi nga am client jëflante moom client bi même bu fekkee ni yenn saa yi jëflante ak moom jëflante bu baax mën na laa ŋàññi ci lenn. te bu amul benn suivi boo xam ne mu ngi am ci ginnaaw da ciy am loolu daanaka mooy community management community management soxla wut nga am yenn yenn yenn yenn yenn kii yu bari yi yenn compétence yu bari yi waaye daf lay permettre tey ji euh, yow amal ouverture d'esprit rek te xam noo mën a communiquer avec euh, les clients wala les utilisateurs en général ginnaaw community management également mën nañ cee citer yeneen yoo xam ne ay analyse de données la ndax fi mu toll nii ñun Sénégal àgguñ foofu waaye fi mu toll nii Euh, dañuy faral di wax tubaab yi ñoom dañuy faral di wax naan nous vivons dans un dans dans un monde de données mooy fi mu toll nii ñu ngi dund àdduna boo xam ni données la nit ñi di xëccoo yenn saa yi nga dégg ñun la Maslim Pro dañoo jaayoon suñu données ba mu indi fi coow wala nga dégg ñun la Facebook dañoo jël ay données tel données tel données tel ñoom fi mu toll nii tubaab yi àgg nañ ci seen xarañte foo xam ni ñoom données moo leen ëppal or maanaam tey jii bu ñu mënoon fexe ba am information ñun ñu nekk ci saal moo leen gënal ñuy am yooyu après dañ koy utiliser yenn saa yi nga dugg Google recherche dara wala nga dugg Facebook recherche dara duggaat ci beneen application ñu proposé la ko léegi nag ce de des mécanismes yoo xam ni ñoom ñoo koy utiliser loolu nag booy xool mooy analyse de données yooyu ci métier du numérique la bokk waaye day laajaale tuuti compétence en mathématique mooy ñi nga xam ne yenn saa yi suivre nañ mathématique ba sori ci ñooñu bu leen neexee ñu def benn reconversion bu gaaw ngir ñoo ngir mën a def loolu gannaaw loolu aussi am na yeneen métier yoo xam ne moom la ñuy wax ay IoT internet of things IoT mooy tey jii nii yenn saa nga ñëw ba ci buntu kër amaana bareegut Sénégal waaye da ngay taxaw ci buntu kër gi rek laa bi tàkk détecteur de mouvement moo koy def maanaam yi ñoom ñooy mën ngaa toog it sa biir sa sa bureau maanaam ak seegu Sénégal nag xarañteeg googu ba léegi bareegu fi mu ngi fi am waaye bareegu fi wala nga mën a toog sa bureau di taal sa frigo nga fay wala nga toog sa bureau dem ba biir gis ni sa télé fayoo ko nga commandé ko à distance fay ko daanaka yooyu it am na ay formation yoo xam ne mu ngi commencé am fii ci Sénégal euh, te yaakaar naa ni dina fi gën a bari gannaaw loolu it am na lu ñuy wax ay intelligence artificielle ak yeneen métiers yoo xam ne bari na léegi nag ci formation yooyu euh, benn laaju ci benn durée bu yàgg maanaam comme ni ngay defee université def fa première année deuxième année troisième année yooyu jaru ndax fi mu toll nii defi formation professionnelle mooy durée boobu nga xam ne nit ñi dañ koy def maanaam tey jii dama bëgg a nekk développeur dañ naan la yow mën ngaa nekk développeur dans mois wala dans wala dans un an nga dem université ñu lay jàngal développement jàngal ay jàngal 60 matières yoo xam ne daanaka lim lay jariñ ci sa développement bariwul maanaam dañ lay tënkal li nga xam ni moom moom moom nga ci yittewoo ngir ngir ngir ngir ngir mu jàll. kon kon maanaam ci tënk rek ndax fi mu toll nii daa mel ni euh, waxtu wi di tee nit ñi ci yenn wax yi day xaw a jafe waaye ci tënk rek ñu koy ñu koy waxee noonu maanaam formation professionnelle fi mu toll nii dafa nekk loo xam ni Sénégal mënu ko ñàkk maanaam Sénégal mënu ko ñàkk rawatina nag dëkk bii di Touba. ndax fi mu nii dafa laajut yenn compétence yu bari yoo xam ne nit ki da koy def comme ni ko Baye Serigne waxee mën ngaa jóge daara ñëw jàng benn formation professionnelle boo xam ne daf lay dimbale ca la nga nekk fi mu toll nii da ngay yor boutique wala nga yor quincaillerie wala nga yor ay service gestion bi des daanaka boo ñëwee nag def formation Excel mën na laa yombal lu baree baree bari rap gën laa gaawalal yenn yi daanaka mën nañ ne daal amul benn domaine boo xam ne formation professionnelle exclure na ko ci léegi nag amaana euh, ku nekk sa bëgg-bëgg ku nekk tamit comme ni ko comme ni ko niñ comme ni ko euh, experts yi waxee maanaam fi mu toll nii intelligence yi ci ëpp niñ koy calculer mooy QI mooy QI yenn saa ñu naan la diw dafa intelligent ndax ci QI lañ ko nattee mais nag intelligence yamut foofu am na ñoo xam ne démontré nañ ndax QI bu buñ koy natt ay mathématiques la ak ay logique lañ lay jox boo trouvé ñun la ah kii muus na wala kii muusul te amaana nag ñoom gis nañ yeneen intelligence yoo xam ni maanaam existé na kon ci tënk rek xam naa ni kàddu yi gudd na gàtt na waaye euh, ñu ngi koy tuubaat bu baax te di ko yemale foofu asalaamaaleykum wa rahmatullah journée de remise de diplôme bi nga xam ni institut de formation professionnelle d'informatique et de gestion Serigne Abdou Karim Lahat Bara amal nañ ko kilifa yu bëree bëri teewoon nañ ko rawatina parents d'élèves yi nga xam ne am na ñu mbégte lool ci taxawaayu institut bi ak ni nga xam ne noonu la formé seen doom yi. du doy yaa ayuha sibyaanu la tastaqilu anil hudaa wa bil hulumi staqilu waaye nag fastaqilu bil xessi wa tilaawa waj tànni boohu foofu la mbir ma nekk suñ tubaab moo nu ko wax wadribuhum alayha li asrin la yonent bi waxoon ni bu ngeen amee juróom-ñaari at na ngeen di soññ seeni doom ci njàng bu amee juróom-ñett dee leen leen ci dóor suñ tubaab ni waj tànni boo majaalisa saqaawa yéen fu ngeen toll rek na ngeen fexe ba jotaay way texe de yi bu ci bokk kon ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax damaa tàmbalee loolu waaye ci sëriñ laa war a tàmbalee xam naa daa war a taxaw fii ndax xam naa ni fii ñu nekk maa ko fi gën a xam loolu ki jóge Pire ana ki jóge Pire moom mais miinuma ko ndax sëriñ sama ndijaay moo ko jur sama ndijaay moo ko jur baayam ma maase ak moom ñu bokkoon di dem di dikk bàyyam yàlla mu def mu gàtt fan lool moom rek la fi ba kon gis nga li yàllay def boo defee mbir mu yiiw yàlla da koy màggal mustafa ñu naa ko ñun tafaaka ndax ki ñu ko tudde sans bàyyi lañ ko tudde encore ati liñ dañoo jaxasoo lu bari moom moom mii kon nii mu mel noonu la war a mel ndax ba Sëñ Tuubaa di yónnee piir boroom seew maamam la fekk si woon alaaji ndaraw ndooy kon moom nii rek la war a mel nekk ci yoon woo xam ne wu jub la di xamale di xamle di xamle kon jërëjëf Sëñ Abdou Lahad nag dafa waxam ne nit bu fekkee danga koy wax wax joo xam ne ku ko dégg xam ne gë gëm dëgg la boo cay wax ci moom bu wax ja bari ndax kon wax ja day yóbbale jëf ja kon jërëjëf nii mu def rek noonu la war a def rabbu sama war aldi rabbul farsi lakkam saratu jërëjëf merci ci wàllu établissement bi keroog bi mu wut bi mu wut barab bi man la fa fekk ak sama soxna vraiment bi mu ñëwee ba présenté wu musuma ko gis naka mu wax rek sëriñam wax sëriñam làndal sëriñam yàgg nañoo jaxasoo ak moom ci liggéey ba mu waxee ba noppi rek man ko kii sama doom dañ daal di koy jox établissement bi la tax ma jox ko ko tamit rëccuwuma ko premièrement deux jox na ma ñaar ñoo xam ne maa ngi leen di employé kenn nga ne toog ku góor ko gisuma ko ah, waaw ki ci sa ngi nii ñoom ñaari ñii ci man lañ ne kon maa ngi sant yàlla bu baax rafaaxanil quran raf an na gën a jóg rek na gën a jóg rek na gën a jóg ñoom te loolu loolu am nañ ci am na solo tubaar fa kàlla kon yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci salle bi fii daara la jàngukaay la kon na ngeen jàng jàng mooy tax a xam jàng mooy taxam a man te jamono jii ñu nekk képp koo xam ne jàngoo bokkoo képp ku jàngu rek bokkoo dangay ngay daal di doone leneen waaye boo bëggee bokk ci formation professionnelle yi dangay jàng te nu ngoo liggéey jàng nag la ca tegu boo mokkalee nag nu ngoo liggéey boo nu ngoo liggéey am kilifa boo koy def di jàll ci lañu jaar ba jàll mbir nag bu fekkee da nga caa jaar ca ba jàll boo koy digal koo xam ne tout tànk la mën na ko bañ a xam waaye bu demee ba ca kanam dina xam li njariñ la na ngeen jàng bu baax sëriñ Fallilou moo xam ne moom ci man la ne ak soxna ci mee sant naa fi ngeen jóge ndax fi ngeen jóge rek fi la alhamdulilahi rabbil alamin jamanka mi mooy responsable bâtiment yi bâtiment boo xam ne yàlla def na teg nañ ko sunu loxo muy moom mii mooy responsable bi jëmm ji jamanka mi moo war na jël parole moom bu fi nekkee doy na sëkk ndax li ñu ko teg ci ay responsabilité xam naa ne ëpp na waaye lépp tegoon na ko jërëjëf yow itam ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen waxaat une fois nangeen ngeen jàng lii sëriñ di def ak ànd ko gaay yi na ngeen ci jàpp indi leen seen doom yi jàng bu ñuy jàng di dem te ndax dañoo bëgg taalibe yi Sëriñ Tuubaa yor Tuubaa fu ñu nekk fu ñu fa nekk rek taalibe Sëriñ Tuubaa bu gëm borom Tuubaa nekk fi bu ko defee li borom Tuubaa bëgg dina ko gën a gaaw am jërë ngeen jëf. institut de formation professionnelle d'informatique et de gestion Serigne Abdou Karim Lahad baara am na mbégte ci ndongo yi nga xam ne tàggat nañu leen ba ñu jot seen lijaasa waaye mu ñaaxaat leen bu baax a baax ci li nga xam ne moo nekk ci seen kanam. li waraloon ndaje bi mooy dañoo yor fii ci Touba benn école de formation professionnelle ñu tuddi ko institut de formation professionnelle d'informatique et de gestion ay xale yoo xam ne dañ leen di tàggat depuis février ba ba tey jii ñu war leen jox seen euh, seen ay diplôme moom moo sababoon ñu daje fii defal leen benn cérémonie waaye defal leen benn fête boo xam ne seen waajur yi ak seen parent yi ak seen am di jàmm yi ñoom ñëpp dañ ciy teew ngir mën a jëriñoo bis bi. soit Touba euh, li ñu ko imposé wala boog li ko def suñu xel mooy dañu yàgg xalaat ñun dañu jógee piir dem université Thiès jàngi bi ñu demee Thiès jàngi suñu première année université premier cours informatique prof bi laaj kan moom musul taal ordinateur. classe bi yëpp yëkkat seen loxo parce que mosuñu gis ah, ordinateur wala ñu ëpp ci classe bi yëkkat seen loxo bi ma ñëwee Touba tamit njëkkuma fi def loolu comptabilité laa njëkkoon di def ci benn institut bu ñuy wax institut Sëñ Mountakha bu nekk Aliya boobu am nañ potentiel informatique ñu ngi doon def ay pub pour def informatique mais on n'avait pas benn milieu boo xam mën nañ ko fa exercer bi ñu jaxasoo ak monsieur Diakhaté ci lañ xam ne lii métier boo xam dafa nekk ci ñun mais lan moo tax ñu exercer ko biir Touba mooy que ni dañu bëgg jox waa Touba chance boo ni képp ku nekk ci les grandes am nga ko ñoom ñu amaale ko que ça soit ñu nekk Dakar ñu nekk Thiès ñu nekk Saint-Louis wala ñu nekk feneen dañu bëgg côté éducation côté formation ñëpp nekk au même pied d'égalité comme ni ko état bi bëggee muy la formation professionnelle accessible pour ñëpp loolu moo tax ñun ñu choisir Touba ñoo Touba dëkkuñu fi Touba amuñu fi lu bari bu nekkul suñu pokos bii ñu fi yoon ni amuñu fi lu bari du coup ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay partenaires potentiels ñu nekk ci dëkk bi wala ñu nekk ay kilifa yoo xam war a jàpp ci liggéey bi nañu xam ne liggéey bii ñoom lañ ko taxawalal sunu dee sunu doolee néew na ci ci bëgg fi ñu ko bëgg àggale mooy que ni bëgg nañ ko teg foo xamante ni lépp looy dem Dakar di ko fekk ci institut de formation professionnelle boo ñëwee Touba di nga fekk lu raw loolu. jaxasoo nañ ak ay nit yoo xamante ni ñii ce sont des professeurs ñii ce sont des enseignants ñii ce sont des des des yoo xamante ni professionnels ñu ngi liggéey ci wàllu formation professionnelle. du coup bu ñu mayee potentiel jox ñu matériel wala boog ñu teg ñu des conditions yoo xamante ni wér na. on va faire de Touba on va doter on va faire doter de Touba d'un institut de formation boo xam te ni dafay nekk un institut de formation qui est inégalable loolu moom ñu koy ñu ngi koy promettre ñëpp allah. également on a on a on a on a mis en place une école primaire deux classes yoo xamante ni c'est pour le c'est pour l'école primaire CI CP ba C2 sax bu ko mënee am. les inscriptions ont démarré ñu ngi xaar parent yi surtout ñu dëkk biir guy mbind ñu ñëw inscrire massivement leurs enfants parce que tamit li ñuy wax nii nii li ñuy def waa dëkk bi lañ koy defal. waaye école primaire tey bu ñu koy def waa guy mbind lañ koy defal kon ñoom nañ indi seen doom yi jëmbat école bi ndax boo xoolee dëkk yëpp wala koñ yëpp ci Touba am nañ seen ay école bopp sauf guy mbind xale yi dañuy génn di dem jàngi fa sori te loolu ñu ngi woo parents yi ñu ñëw inscrire seen xale yi ñu encadré leen encadrement bu mucc ayib incha allah ñun ñëpp ñu bokk jëriñu ba soobee suñu borom jërë ngeen gaax bu ndaw nekk institut boo xam ne day tàggat ndaw ñi ci domaine yu wuute lépp ci xam-xam gu mucc ayib ànd kook ay jàngalekat yu xarañ lool